Bismillah! Operation Midday! Ah! dañoo fas yéene xeex de xanaa xeexati termine yéene kay ne ma ne la assemblée nationale day waaw président bu ko dafa war a dem de waaye opposition bi day ne la dañuy boycotté nag day waaw mooy wàllum liberté moom sa bopp bi nga xam ne nag maanaam Macky Sall ci biir mi day da ko daal di koy caxa waaw comme na mu caxa kon charte réew mi di constitution bi le 19 avril bi passé di alxamis gi vox populi ne ñoom député yi nga xam ne ñoom émission waa daal di jël kon attaque der daal di dugal ci assemblée nationale gale ngir génnee ab député illallah maa la ko wax la gën a nekk seen ñaxare gis tamit ñoom opposition ba day waaw muut mbaa muut rek xoolal leen ma leader yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci opposition bi day ñaata lañ ca loxo keroog waaye itam citoyen sénégalais yi waaw ñaata wane ne caatum réew la di constitution bi nga xam ne kon Macky Sall da koy caxa-caxatee ni la d'accord duñ ca rek mooy seen ndoor kenn du wax kenn du manifester waa lii luy ndeem wal fajiri ne gis nga wàllum parrainage googee waaw ma ne la ma kalaame yoo xam ne day est bi est-ce que gëm ñuy ah. ah. déposé na kon kalaame ga ngir ñu daal kon nag nii lal wàllum parrainage googu eh. waaye xam ah. waaw dafa ne loi kenn mënu koo conseil constitutionnel waa léegi lu tax ñu dem ca yéeni kaay ma jamal jàngi ne moo taxi ba ñu génnee rek la maître Madické Niang ne balaa mbele mbele yi di profité di wax ma leeral leen lan moo ñu fi indi tey jëlee ñëwuñ fi ngir song wàllum constitution bi de déedéet loi bi ci boppam ko annulé ko parce que waxuma ne sax càttum réew mi nga xam ko waaw ci boppam kon dañu koo caxat-caxatee en tout cas ku yàq sa palax day réccu ko terminé yéene kaay ne Souleymane Ndéné Ndiaye de ah, la mu jur rëyul jóge ca avion ci sareetu mbaam mardi tali waaw président de la république waaw daal di teeree ji ci Macky Sall kon def la président président da doon wax ne daa bëgg a nekk président de la république waaw waaw waaye nag yénn ci ay observateur day waaw di ay seetlukat dañoo mës a wax ne Souleymane Ndéné Ndiaye du mës a jàkkaarloo ak Macky Sall laa la wax gis nga Macky Sall moomee waa alliance Sauver le Sénégal ci Walfadjri nee nañu prix Macky Sall pour le dialogue ko dindi xaw ma moo ko jox boobee waaye na ko jëlaat ah bon Babacar Ngaraaf ne waaw parce que Macky day nekkul homme de dialogue Macky Sall nekkul ni koo xam ni kon day waxtaan ak askanam daal daa bëgg a réew mi ni loo xam ni moom moo ko moom daal propriété privée maa la ko wax du fi am de loolu kay fi am parce que Macky bis bu nekk doole rek lay jaay def lu ko neex jël ay dogal yoo xam ni kon unilatéral du ci waxtaan ak kan xoolal xew ci référendum 2006 ñu ne déet ni waaye élection député yi gàddaay loo ko Khalifa Sall ngi ni lé ñu teg ci biir kaso Ousmane Sonko ngi nii ñu daal di koy dàq fi doon liggéey dama ne ci juróom benni atu yàlla yi lée waaw Macky Sall li mu teg ci ay opposant ñoo gën a bëri li mu ci ay rebelle ay reykatu nit ak ay trafiquant opposition bi rek lay tribune yéene kaay ne Omar Feller leeral askan wi jël na wàllam démb mar d' itali la division des investigations criminelles di dik lañ ko convoqué woon te Omar Feller leeral askan wi day deful dara lu dul défendre rek intérêt wu réew kese rawatina ci wàllum koom-koom nga xam ne waa bitim réew ñoo fi ñoo franco laay rawatina français yi lée lii la Omar Faye di xeex ba joxe exemple lu Kabirou Mbodj bi jiite wari te daanaka sax ñàkk jënd bi nga xam ne kon ñu ko doon jëndaati ko Omar Faye doomu Sénégal yi ñoo war a nekk farata ba pare loolooy dëgg nag réew mi quotidien ne présidentielle 2019 ba day waaw Alaaji mi ne est que nekkul ne moo fi sës li de la situation journal bi ne nga bëgg bañ Malick neex naa jaay te neex naa présidente waaw waaw bokk na ci ñi crédible la ci classe politique gars lu ñu la wax ren du nooy tooroo sa noon mobilisé terminé yéene kaay ne jàngalekat yi kay dee mu ca diwaanu njaareem gee jurbel waaw seen marche ba day macha allah démonstration de force laa la wax le tee mooy yéene kaay ne ay junni junni kay ci ay doomu aadama jàngalekat yi ne Macky Sall moom tondoom yëpp ay tiitalaate la ay doore tam ñu dem sosol ñu kese président man Pierre Amet Ba mouvement moi le Sénégal waaw nee na suñu homme politique yi lé dañoo jàppee askan wi ay imbécile waaw le quotidien yéen kaay ne en tout cas am ci wàllu njàngame njàngale ca Thiès waaw état bi day ma ngay taxaw nag ñaari élèves yi nga xam ne grenade leen dal ci kanam médecin après la mort rey la jaale la tribune yéen kaay ne xoolal ñi xam ne ñoom ñoo nekk ca kaso ba ca Thiès ginnaaw ba ñu grève ba nuppi ñi nekk camp pénal ci Ndakaaru gi grève de la faim marti itali la ilaha day ba ca ne Habib Faye day wuy juna boromam inna lillahi wa inna ilayhi tribune yéene kaay ne Sénégal ñàkk na Vox Populi ne ni ki démb kon la ko def ca Paris libération yéene kaay ne ci Ndakaaru Njaay Jal Joob gi mairie bi waaw amarcé boo xam ne bu lëndëm lool sept milliards huit cent ëpp la tribune yéene nag ma expliqué leen lan moo tax ba ceeb bi ñu wax ne danañu ko béy ci réew mi ba mu doy sax autosuffisance en riz mbir mi lajj ubbil journal bi explication yaa ngi <laughs> alaaji kaddu buur buur kaddoom du caaxaan comme que ñenn a wax rek war na koo xoolaat Samsung ak seen téléphone.